bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil qadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi seen mbokkum taalibe mi gën a xeebu généralu Bamba moo leen di nuyu di leen balu àq te di wax ni jëwriñ Mbàkke yu fay mi nga xamante ne bii ku tedd ki moo ko def jëwriñ fii ci capital bi ci Ndakaaru ak taxawaayam bu rafet ci lu jiitu ñuy amal jumaa ji Masalik ba ni ñu ko amalee ba jox ko ndigal li mook Cheikh Bass ñu top, topp lu ko tàmbalee ci serigne Saliou ba ci allah jibar ba ci serigne Cheikh Matilay Cheikh Sidou Mokhtar ba ci suñu jambar gi di Cheikh Mouhamadul muntaka, ñepp daan fedd li seenu qualité ci mom di seede ak kon buma sañon ñu war mal ko ngir jëmmi ko tedd ki ndax ko xamanteni ni sax sey ci ku tedd ki umpul kenn rawante naa nag ñu def la jëwriñ di la lo ab liggéey nga koy saytu ni mu waré man dama jàpp naa ne sëriñ Muntaxa du war a gërëm kenn keneen di ko xarab ndax loolu kon kenn du xam lu muy nuru kilifa ñëpp ni kii gërëm naa keneen jóge fële di ko xarab te ni sëriñ Tuubaa nga yaakaar na nanu delloo si sunuy xel tey suturaalante te respectante te fàttali ko nag waxi ku tedd ki te mat la bu sifaa yi ba mu ne yàlla wajjahal xulubana ala tawaadudi lu mu ca teg bila lu mu ca teg wala tahasudi lu mu ca teg wala taxasumin di mu ca teg xataa nasira na xaashihin wa muminina maxlisina saalihin ay waa ji ñu delloo si sunuy xel tey bàyyi xel ku tedd ki nun murit nag ñetti catégorie lañ dafa am murit am murit sadiq am murit sadiq war nabil murit sadiq war nabil nag la ñuy wan yoon wi te moom nabil la ci catégorie boobu la bokk moom ci catégorie bi ñu gën a taamu ci murit yi ci la bokk waaw wax dëgg yàlla képp ku am yeneen compte yooyu réglé nag nga réglé ko neneen waaye bu mu doon ci biir ku tedd ki ak le muridi al muridiya fil muridiyati déedéet loolu rafetul wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni bi daal ñooy wax ci moom ñu dul noonu seen mbokkum taalib bi mi ngi leen di ñaan ngeen soppi ko tabdil ko ndax innal xasanaati yusihim na sayiati wa salaamun minallahi aleykum wa rahmatullah